comme ni nga gisee noonu mbokk si internet sur bi. ñoo ñëw ba fii. waaw ñu dagg bee. amul ñu bëgg ñu jaar suñu amul. soirée ah, amul. ay nit. ah. ci ñu ngi woon Njaareem Diourbel mais daa mel ne soirée bi dafa mujjee mujjee nuyu nañ la. waaw sant yaa ngi doon wax si sànq ba tey lu xew. waaw non dara xewul ci sànq yi la rek. parce que ñëw nañ ba ci biir te gis ne soirée amul après gars yi na leen delloo seen xaalis ah, ne sa xaalis. waaw mais lu tax soirée bi amul. ah parce que waaw ah, loolu moom xam nga moom dëgg yàlla mais en tout cas daal moom dugg nañ ba ci biir bi amul léegi gars yi taxaw na ne leen na leen delloo seen xaalis ci nekk di discuter. ok merci beaucoup. Thiat lu xew. Bas. Hmm. artiste laa dëkk ci dëkk bi ma ñëw gis li ma sañse ñu sama sañse dama sañse def ba mu baax. Hmm. ñëw ñu ne ma doo dugg junni laa fay tas naan soirée bi nee duñ ma delloo samay junni artiste bu toll ni man bàyyi ba boo di bëggal xale yi ñaareel ñëw ñu eggee sama junni ma sama junni dina ñaaw nag comme mi ngi ñaaw moom na ñaaw rek. dinañ jox sa junni. nee na ma ko jox. dinañ ma ko jox loolu lan ma wax duñ ma ko jox. dinañ la ko jox lan ma wax. dinañ la ko jox xoolal jëlal fële. ah ma waaw maa ngi gis kii ñëpp suñuy junni junni kon nag junni junni. mi ngi ñaaw de. na jaajëf wax ak ñu lu leer. salaam. chef lu xew. problème bi du ci Keba Seck. Keba Seck musicien la bu ñu déplacé. fay ko kase pour mu ñëw jouer leen. Mhm. ñoom ñoo am problème seen biir. Keba musicien la. Mhm. bu nu woo fay ko kase ne ko ñëwal nga wayal ñu mu ñëw pour wayal leen. ñëw na bi heure bi jotee. ba léegi Keba bi ngi toog demul. mais dafa am ñoom ñoo am problème seen biir nan ko réglé te génn ci musicien bi ko quoi. Mhm. Keba Seck dañ koo déplacé mu ñëw Diourbel. contrat ñëw na Diourbel ci contrat bi. Mhm. mi ngi toog di xaar ba léegi ba quatre heures dix huit mënut a joué. lan moo tax loolu mënut a joué. non loolu ci entre promoteur bi la ak ñi may liggéeyal. Mhm. mais du problème mu Keba Seck bi ak ñi muy liggéeyal mais du problème Keba Seck. très important. il faut nit ñi comprendre. waaw Keba bu fekkoon dañ koo fay kaseem. ko mu fekk benn day way organisation la mhm. bu dañ ko fay ne ko wayal mu mille personnes mais ñoom problème sono ak promoteur bi problème personnel la mais ñu dañoo gis ba dañoo gis ñu balance ba mhm. ñu soirée non parce que da nga naan balance ba pare borom sono bi fay sono bi borom sono bi li fay sono bi mais Kéba yéegul ne lay way borom sono bi moo fay sonoom mhm. borom sono bi li tax moo fay sonoom lan war a lijjanti dañ kaa fayul wala lan entre borom borom bi la ak promoteur bi ana promoteur bi promoteur bi mooy Tidiane ngi koy réglé mhm. borom sono bi mi ngi fi mais comme loo xamante ni bii dama signé woon contrat man mënu ma cee wax mais le c'est sûr que ne du problème mu Kéba Seck tout cas jaareen dix vingt et mhm. ba quatre heures du matin mi ngi toog kon ñibbiwul c'est ça la vérité mais ñi ñu ciow ba nga bëri suñu ginnaaw ciow bi ku man di ciow ak ku ciowul ki mi ciowal du Keba hmm Keba mom ciowul ciowul mi ngi ne tok di waxtaan ak ay tam mi ngi kaf di mi ngi ci jamm mhm. contrat moo ko fii indi heure bi mu wara a ñibbi day dem ñibbi Dakar waaw ñun ño fi desaat nag kon lu ci way wan di wax wala nga war ko def nang ko garanté kané li ngay wax dang koy wax ak doomu Jurbel ndax ñun ño fi dëkk dëgg la ñun bu ñepp ñibé ño fi des mhm. yow ñaarem nga dëkk fi la juddo fi la yeroo fi la def man nga maa gis fu ne waaye fii laa dëkk fii mooy sama dorosine kon lu waay man di wax wala nga di ko def na nga xam ne ñun après ñoo fiy def promoteur bi nga may jox rek ñu waxtaan promoteur bi Tidiane la est-ce que moom man naa wax ak yow problème ama waaw après ñu jël ko kon voilà kon après da ngay contacter Tidiane nga nga communiquer ak moom mais uh-huh. c'est la bu fekkee ne fii situation bi toll moom du problème mu Keba Seck wala ak waa Diourbel wala Keba Seck ak non non non non Keba dañ ko convoqué ñëw na mi ngi toog mi ngi xaar bu waroon a way ñu ne ko bu ñibbi dem ñibbi day ñibbi. ok merci beaucoup. waaw mais Basirou siiwal ah? neexul sama gars ñu ngi leen nuyu ci nekk sa tur ak sa sant man la Leyti Mbow cat bongo bàyyi Bada Mbow mooy bëggal xale yi kon xanaa neex. sama teewaay fii parce que man doomu Jurbel laa te njaareem laa dëkk mooy doomu njaareem te njaareem nu nu te ñun jeunesse su njaaram ñun ñëpp benn lan te njaaram ñun woote ñun waa njaaram dañ cee a gis ñun artiste su njaareem yi tey ku ci nekk yaa ngi taxaw naan njaareem maa moom man maay borom njaareem te xale baa ngi nii xale bi mooy ki koy yëngal mooy ki tee bës su njaareem fii maa ngi nii man la ni war ba fajar dëgg neexul moo waral sama teewaay tey fii ci Verdi le jour de la tabaski bàyyi sama programme yëpp bàyyi lépp ñëw si Papa Keba mais dañuy gis chaque jour. jour de la tëgg du ma tëgg parce que xam nga tax du ma tëgg. ñun njaaram lañ tëgg te njaaram lañ am te njaaram am naa yaakaar ne boo fiy def dara da koy waaj waajaat ko jox ci ñaxtu ci wax ci mu mën a sotti daal yaa ma gën a xam mais tamit ñun it nag artistes ñun. man cat bongo léegi mbow bàyyi bata mbow kii xale njaareem man dama teel a génn ndax njaareem laa am njaareem laay tiituroo mooy sama pare mooy sama France dëgg neexul. waaw. ñu doon def benn mhm. a ànd sax. lu mu waxoon ñii nee nañ mais Maria Sine may sa biige may sa biige maar mais tamit liy jot jot na Baye Zal sama rakk la sama jarbaat la sama lépp la yàlla xam na ne suba rek ñoo war a dem tëggi mais mariage may sa biige may sa biige maar xale yi ñu ngi lay xaar fii ci Diourbel Baye Zal boobu ba léegi lay xaar mais ñëwal nga wax ak Baye xam na yow wax nga ak Baye la nga waxoon def nga ko Baye Fall nga yow Fall ngay wuyoo. non moom Waly moom dafa war a ñëw recevoir booy bi def ci booy bi li waxoon ci booy parce que. njaarim gépp dañoo taxaw Sénégal gépp taxaw Mbàkke ñëw Bambey ñëw Kaolack ñëw yi war alentour ba lépp ñëw te ba léegi ñun gisuñu waaw mu leer te dafa war a leer kon na mbind mi leer léegi neexul. kon mooy que ni ba tey ko waaye Sénégal dafa waaw gisaguñ léegi man ak booy bi chaque jour ka jëfee maam ci semaine bi dinañ ci ànd ñaari wala ñetti yoon man ak moom. mais ba léegi man gisaguma maanaam li nga xamante ni mariage may séddee que moom Wally Seck la ma waxoon ci boobu def na ko mais dafa des defu ci dara mais Wally ñëwal nga recevoir booy bi xam ne booy bi moom silmaxa la te ba léegi heure bu ñu toogee programme moom yow lay waxtaanee yow lay bëggee yow lay tiitaroo kon defal ci moom yaa ko wax te ñun boobu ba léegi gisaguñ ko te ñun ñun ak moom ñoo ay grand frère am lañ kon war nañoo gis lu leer Maria Sine ah. kon ñëwal Baye Fall bi. léegi ban message ngay jox mais Wally Ballago yow baax nga macha allah gore nga macha allah yaa ngi jàppale jeunes yi. mais ñun waa Diourbel kenn waruñu cee jiitu kenn waruñu cee njëkk ndax fi dëkk Serigne Touba la te da nga ñëw ba Diourbel benn ñu ne déetawaay nga ne ñaar ñu ne déetawaay nga ne ñett ñëw taseeg suñu rakk amuloo digg ak moom kon li nga digg ak suñu rakk noo def ko waale boo bëggee ñun waa Njaaram ñun artiste Njaaram ñun ñu kontaan. loolu rek lan lay ñaan yàlla rek tax boo ñu defalee loolu leneen loo ñu defal rek loolu moo ñu gën a neex kon defal ñu loolu jàppale ñu suñu rakk ji loolu rek lañ bëgg. bàyyi moom mi ngi fi sama tos sama dajaay maa ngi koy nuyu di la masawu tamit naaj di la bëggee ak di la baalu ci koor ci tabaski geeg lépp dégg neexul mais it moom xam naa moom dina ñëw moom xam naa ne moom dina ñëw ndax moom day wër papa Keba ba fajar mu dem tëri mi fi mais tamit gars yi xale baa ngi ñëw de bàyyi Bada Mbow ak Bijou mooy béggal xale yi njaaram te maa ngi ñëw maa ngi ci yoon bi te léegi maa ngi si. dañu ñaan caat caat boobu rek ne est-ce que dama ne xam nga lu ma leen jox ndewenal njaareem dëkku Bàmba xam-xam ba di fa jóg ekiraangi it du fi jóg moo taxit tukkee tuñu lang fu nu demit dañuy ñibbisi xoolal ko weddi lii demal ba kër seex bilaay am na ay seex xam-xam ba fa jeex fii nii mooy njaareem dëkk Serigne Touba Mbacké maa lañ namoon loolu ndewenal en bon entendeur salut dégg neexul léegi waaw yow ba nga hmm. mais tamit yéen rek moo ñu fi indi ak cofeel ak mbëggeel moo ñu fi tay tey mais tamit di wax yéen waa Njaareem bu dara amatee te bëggu leen lu Njaareem neex bëggu leen lu Njaareem dox te aar dafa bokk ci li dundal dëkk kon gars yi na ñuy génn di wuy si di ñëw muy tolloo ndànk-ndànk ba keroog lépp di ñëw fii. mais njaareem tamit dëgg neexul ñun ci lañ bokk aar muno koo tudd te doo ci génne njaa te doo tuddaale njaareem kon ñun waa njaareem kon ñun nañuy topp aar nañuy bëgg aar te bu dara xewatee ñun ñëpp nañuy génn wuy si lii laa wax. c'est-à-dire génn non génn mais génn bi daa am nu muy demee dañ koy waaj mais tamit bu événement jotee lu toll ni tabaski ñu war a ballonte ak génn fexal xol yi sànneeku tëmbal galaas. kon ñun ñëpp dañoo war a génn ñun artistes ñun yéen suñuy fans yéen ñu waroon a jiitu fii ñun artistes yi mais ñun artistes yi ñoo fi jiitu suñuy kon Baye Fall Yaay Yaay Boy xale mag ak ndaw bu dara xewatee nañuy teew di ko bégee dëgg neexul nag nee naa la ginaar kenn du ko rafet ca leneen ah, la man maa ngi waajal sama anniversaire. tabaski nañ ba pare day bàyyi bañ tam xarit ba hul, dëgg neexul le vingt cinq décembre mooy sama anniversaire chaque année mais tamit programme yi mi ngi taxaw waaw ñi ngi ci tournée yi daal ñi ngi ci tournée anytime yi ak tournée jàkkaarloo ba di top lépp xale yi ñun la ñuy ba fajar doog dem tëri léegi ku ko da ngay def 60 sama numéro numéro numéro sama numéro téléphone bi defal 77 173 88 35 mooy sama numéro man Lat Sine Faty Nabou la nga daa di bokkul sama numéro numéro numéro sama numéro téléphone bi defal 77 173 88 35. mais tamit message bi may jàllale mooy ñun artistes yi nga xamante ne ñoo dëkk Njaareem nan bokk ndey nan bokk baay te tamit en plus de nuyu ngéwél gi famille yi. di jëtal président bay Serigne ñi nga mais tamit gaay neen boko nday boko bay di xàccandoo di tóorandoo te di ñaan yalla tamit tabaski gi ñu nek bal nañ ñëpp nañu ñep bal te yalla ñu ko teew ay teew ñu bari te tamit Siweul TV télé bi nga xamante moy mooy télé bi woor télé bi nga xamante moy efficace yalla nako yalla magal yalla bi dem ba ci kaw ci kanam ba melni sorolu mam Seera ba ca Touba lolou la ñaan. tey eh, mais loolu lu ñaaw la loolu lu ñaaw la man ñaawlu naa loolu te rafetlu rafetlu ma loolu wax dëgg fa yàlla bas gis nga doomu aadama bi ñun ay jullit lañ te mosoo koo gis ci église kon ñun jullit yi bu demee ba xewlee nekk suñ jàmm même nit sax nga jàppal ko benn affaire muy julli di jiitee ci yàlla te yàlla rek tax di dox ci yàlla rek ba yàlla rek tax kon ak loo mën a jàppal doomu aadama bi war ngaa mën a bàyyi mu sedd ba mu taxawal julleen ba pare du yoon nañ leen bokk ndey nañ leen bokk bàyyi comme nañ ñun yàlla lañ gëm ak Serigne Touba ak El Hadj Malick ak kon nañ leen bëggante te yàlla rek tax liy fecc kanam yi nay feeñ ci xol yi liy feeñ xol yi nay feeñ ci kanam yi adduna amul solo li lépp day jeex adduna du kër ñoo ko jàpp mais jàppuñu te du nu mës a jàpp ñu jàpp adduna dee te loo gis lu rek day jeex ci nettali lay mujjee te amaana nettali ba daa war a rafet. jërëjëf waaw Bas.